alhamdulilahi lazi tatimu salihati wasalatu wasalaamu ala seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba sante borom subhanahu wa taala di jul ci sang-sang bi seydina muhammad alayhi salatu wasalaam saa su ñu ko defee ñun waaye Vision Médias nee naa dara du leen raw ci màggal gi incha allahu rabbi ginnaaw buñ jógee ci soxna asu mbàkke doomu sëñ Mutala mbàkke ibnu xaadim rasul radiallahu taala anu ñu toog ak kenn ci jànkatam yi muy nekk xaadim samb moom lañ toogal fas yéene waxtaan ak moom mu wax kan mooy sëñ Touba laa lañu ci xasida sëñ Touba yi incha allah rabi ñuy doog a demaat feneen salaamaaleykum sëñ Xaadim waaleykum salaam soxna si bu baax si maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax euh, jàngkat nga yow mhm. waaw jàngkatu xasaayit lañu waa wax dëgg yàlla depuis kañ nga commencé di jàng xasaayit man nag dëgg yàlla mën naa ne xasida yi moom bi ñu xàmmee rek ndax dañoo juddoo géejawaay maggee fa bokk fa ci daayira bu ñu naan daayira Masaalikul Jinaan wax dëgg yàlla fa la ñu nekkoon ci daayira bi rek di si karantu ba far mujj gi ñuy kuréel comme li loolu ngay dégg noonu isbu yooyu ñoon ñoon li ñuy def di kuréel buñ jógee ci loolu nag wax dëgg yàlla ci lañ euh, nekk nag di jàng suñu njàngum bopp suñu suñu eeri bopp dañoo nekk ci 18 safar mu nekk euh, woote boo xamante su maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo ko woote lan nga ñu mën a wax ci 18 safar gi waaw 18 safar nag moom sëñ Tuubaa ko woote sama turandoo nga xam ne képp ku tudd xaadim tey sa tey sa anniversaire la muy sunu bisu mbégte bu wax dëgg yàlla muy sunu bis sëñ Tuubaa ne kaay leen ngeen sant li ma yàlla sama borom ndax bis bi sëriñ bi cant la ko woote daane nan ñëw santle ko sunu borom kon bis bi bisu cant la bis bi bisu safar bisu mbégte la weer wi boo xoolee fi mu ne murit yi ñun murit bañ tàmbalee premier safar ba tey yaay ngi tey sa bët tooguñu guddi tooguñu bëccëg ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci guddi ñi ngi ci bëccëg di ci nekk ci bernde yi nekk ci alxuraan ak xasida bis bi nag looloo looloo looloo ko looloo ko looloo ko ëmb jàng xasida bernde jaamu yàlla ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan lépp gën a baax waaw loolu loolu daal loolu sant yàlla daal la sëñ bi woote. sant yàlla te sëñ Touba mu ne nañ ko sant yàlla mu tànn 18 safar lan moo waral loolu. waa li waral loolu mooy sëñ Touba natt bi ko suñu borom teg keneen ku ñu ko tegoon kur kur moom doo ñëwaat. natt bi moom rek ko attan ndax suñu borom bi mu tegee natt bi daanaka ñi ko laajoon bari nañ waaye bi suñu borom xaymaa nattu ba na mu toll sëriñ bi daane bu ma bu ma bu sama sama sama ruugi sama jom ji attan na ko ak na ko fii ko lolu seigne touba rek ko wax kenen kuñ ko joxone bu la gañi bu la touba bi yobbu yobbo incha allah doo ñëwaat mom waye nak seigne touba moko ko ndax dëgg yàlla tey it moo waral mu am lu lu lu amut mel lu ken melu tam waaw li li dal li dal li dal moy moy affaire bi. gi yor-yor gi la. magal gi mom yor-yor bi la. lan mo tax mu yor-yor gi. wa yor-yor gi bo gise mu nek yor-yor gi parce que yor-yor gi ci le ci le serigne bi manam manam xamna tan mom mom mu gënal ko ci leppam yor-yor gi ci la nañ ma ci wàccal ay kaamil fi ne bo demé jumaaji ma nga fess del nañ ma ci jangal ay xasida nañ ci ñaan nañ ma ci ñaanal waaw waaw magal gi dal limi yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu yor yor gi la waye yor gi mom yematul sax ci yor yor gi ndax bo xolé wër wépp la fi ne gi dal 18 safar daal moom daanaka premier safar la ñun murid ba ba ba ba ba weeru jeex rek inshallah rabbi ci kàddu sun borom ndax serigne bi tollu na fofu ci ñun te jaral nañu ko wax deug yalla dama gis ni sëriñ bi euh, tubaab bañ ko yóbbu ci yor yor lañ ko yóbbu moom loolu benn fan la la moo kon ñu def 18 safar 18 safar gi la moo ko waral ngeen tàmmee Ben ba fukk ak juróom-ñett la moo waral loolu waaw fukk ba juróom maanaam ba juróom-ñett benn ba fukk ak juróom comme ni ko waxee rek maanaam 18 safar weer bi boo gisee sëriñ bi tànn tànn bis bi maanaam ñu bari dañ doon dañ doon dañ doon dañ doon bisub euh, bisub bisub nakar. mais li bisub bàndeex la parce que bi bi ko bi ko bi ko tubaab bi yóbboo mu yàgg fa lool wax dëgg yàlla bi mu wàccee fii ci port 11 novembre 1902 daal ne daal daa woote maam Cheikh Anta daal ne nag bis bii bëgg naa bu ñëwatee ngeen sant li ma ci sunu borom ngeen sant li ma ci sunu borom moo waral nu jàpp ko weer bi muy 18 safar nga xam ne maanaam 18 la woon ci weeru safar nga xam ne heure bu ñëwatee rek ñun mooy sunu mbégte màggal gi nag fu ne fu waay toogoon da nga daan toog sa kër ñiy toog géejawaay comme comme comme ci exemple ni ñi toog géejawaay ñi toog parcelle ñi Pikine waa Touba toog Touba màggal ko waaye sëñ Fallou mi nga xam ne moom moom moom kenn du moom moo woote Touba ne bis bi bu jotatee dama bëgg ku nekk foofa nga nekk nga jógee fa ñëw fii ci Touba sant le sans sans bàyyi baax ba boromam li waral di du safar. muy dégg ñu ne sëñ Touba dafa wax ni euh, bul xeeb bul euh, yeew gileem ba naw ko bul xeeb euh, indi ginaar ba xeeb ko la moo tam wax loolu. ginaar ba gileem sëñ Touba daa ne bis bi bu ñëwatee nan ma ci nañ ma ci indil. ginaar ba gileem. bul xeeb bul yeew gileem. bul bul bul bul bul yeew gileem ba naw ko bul xeeb ginaar it ba ba yéem ko ba mu tuuti maanaam loolu exemple la fa joxe boo xam te nii maanaam gileem bu ko bu ko indi bay bay ba jàpp maanaam bay bay tiitaru naan man gileem laa rayal sëriñ bi Sëriñ Tuubaa bu ñu ko ku rey milliards gileem fayuñu ko ak xam xanaa liñ liñ liñ mën ci moom mooy nañ xam ne naar bi indi xorom si Sëriñ Tuubaa liñ ko mën a fayee nañ nañ toog xam ne kat ah waa jaa ngi waaw dëgg yàlla nag nangu nañ ko te xam nañu ko ñii nangu ko xam ko ñii xam ko bëgg cee dëgg seen tànk te mënta ne ndax sëñ tubaa moom ku am nopp di dégg yor yi bët di gis di nga xam ne waajaa ngi te ku da ñëw fii ci dëkkam bii Tuubaa gii ba jàkkaarloog jumaam jii jàpp jàkkaarloog dëkkam bii di nga xam ne nag waajaa ngi wax dëgg yàlla waaw ñëpp baax nañ nag ndax suñu borom euh, wax na ci alxuraan wax na ci alxuraan wax ci alxuraan aaya ba damay damay damay faral di reer nos ci buumu yàlla gi te bañ a ko waaw waaw waaw waaw ayib damay faral di faral faral di réer waaye nos boo maa tafar raxu ayib damay damay damay damay damay damay waaw waaw waaw waaw waaw ma ngoog daal maanaam daal su ma li mu ci wax mooy ñun ñëpp jullit mu ne maanaam ci exemple murid tiijaan xaadar layen waxtasimu bi abdillahi jaman wala tafarraxoo waaw ñun ñëpp nañ mooy ci buumu yàlla gi te bañ a taxali ko àdduna nag ñun ñëpp ay doomu aadama lañ wala xad karam naa ba neeram la yàlla wax ñun ñëpp nan ngooy ci buum bi te bañ a tàqali ko xam ne yàlla rek a fi ne itam ñu jàmm ko wàcce wuñu fii lu pour jàmm ko rek waaw. 18 euh, safar gi sëñ Touba am na xasaayid bu mu ci bind. waaw 18 safar gi sëriñ Touba am na ci ay xasida yu baree baree baree baree bari. ndax exemple wax ñu ci benn boo xamante ni comme ba ko tubaab bi jëlee. waaw nee na xarajtu yow ma sabti saa minil asar li xidmatil muxtaari fii saxri safar boo déggee sëñ Bay Jaxate xaw ma mu Musaaka nee na sëñ Bàmba ci ci ci ci tukkeem bi. dogal ko demam gi wolof nasaranu te kon nyep ñun ñëpp ñun ñëppay dem niiraanu dégg nga lol Baye musa Ka ko wax xawma ma Baye Jaxate sëñ touba dal lepp moma dal ñun nak ñi ngi ci xasida yu guddi ñi ngi ci xasida yu bëccëg di ci jëm donte ayuñ ci mënuñ ci lu bari waye nak ñi ngi ci rek rabbi bima yasrahul asghana had fajaha bijai afdal liman لله هان لجاعا حمدي لرب كريم لا شريك له وساري اليوم نورا ساتعا ملاها محمد صلوات الله في أبد عليه في إسبيه كل به كلا أدو إلى إلهي أمات مواهب لجملة الخلق ما يختار من براع ناجيته جل ومن وكرماني تكريم هاد وكل من لغان بريها رغمان هاب للجميع الخلق من يغني أني سريما قرآنه خراعا خدومة المسافة عن كل مفسدات وابترهمي خلقايا man jaadahum badaa ya malikal mulki ya man jalla an xawadin irham jami alwara ya hadiyan radaa ma hawta ma hadna xul qalbu min dararin bijaayi abdali man li laay xaat la jaaxa barke borom Touba. macha allah am na solo dañuy bàyyi nga tàggoo tàggoo lu tàggoo rek yow nañ dafa yow émission incha allah. ah sama xol sedd na nag sama xol sedd na ma la naa sa la yaskuru laa ku sant nit doo sant suñu borom soxna Awa sama baax mii nga xam ne sama rakk la moom sama rakk la sama xarit lii lépp moom la ndax nit am na li muy liggéey te yaatulu ko nit am na li muy liggéey te da ciy siis mbaa di ci nay te nit nag liggéey ci nga mën a jaamoo suñu borom lii. bi mu ñu ko dalee wax yàgg na waaye tey jii la ko suñu borom dogal te fii mu xewee sax nag fii la war a xewee fii mu xewee moo gën ci ñun gën ci moom yàlla na yàlla defal jàmm télévision bii nag maa ngi ñaan ngeen dem ba sut ñëpp ngeen dem ba jël pay barke borom Touba def international bëgg naa lool baat bi daa xaw a dee coono yu bari ndax bi premier safara teeroo ba tey amul benn bis boo xam te ni amuñ ay programme yu bari yoo xam ne ñoo ñoo koy jàng loolu sant yàlla di ñaan suñu borom yokk yokkal nu ko barke borom Touba yow it kontaan bu baax a baax suñu xol seet na ak yaa seeda ak xale yi ngeen àndal yëpp jërëjëf kontaan nañ ayca mi ngi noonu xaadim Samb lañ àndaloon mu ñu doon wax euh, si turandoowam suñu maam Ahmadou Bamba xaadim rasul lu waral màggal geek ak xas xasida yeeg yëpp wax nañu ko macha allah am solo nii la ba léegi pare guñ de day ñëw damaan yeneen bërëb incha allahu rabbi pour jox leen lépp loo na ci màggal gi waaye lii yëpp tey kër soxna Astou Mbacke ibnu sëñ Moutala Mbacke ibnu xaadim rasul foofu la xewee bàyyeeguñ day ñëw demaat léegi-léegi beneen bërëb pour wal leen yor yoru màggal gi daal lépp du leen raw incha allahu rabbi ak El Vision Média ak Seyda Salimata Moroon waaxidu daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu ah waaw waaw fii nag moom. Ah. wa waxewuñu waxu fans <laughs> waxu taalibe waaw waaw ñun ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek lañ bëgg. nañ dem abonné ah. ak ñi nga xamante ni sëñ Bamba rek la ñuy nooyee ah. nañ dem abonné. Elvision Média